ko ci liste électorale yi rax ci dolli Ousmane Sonko mën a dem di dikk ci anam bu jaar yoon ci noone cour de justice bu CEDEAO notifié na requête yooyu de état bu Sénégal ngir mu indi ci ay réponse nu mu gën a gaawee soxol violation ak ak yelleef yu Ousmane Sonko jaajëf Younoussa Baldi Ndeye Fatou bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ne moom moo di requête bi avocat yi daal di dugal benn bi ci turu Ousmane Sonko beneen bi ci turu euh, parti bi mais également li nga xamante ne moom moo di violation nee nañ bu àq ak yelleefam wàññi nañ ko ba mu toll ci onze tey jii dañoo jàpp ne euh, état bu Sénégal dafa sal salfaañi lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama waaye itam recul démocratique ban jàngat ngay def ci recours bi. am na solo Fatima ndaxte bu fekkee ne am nañu client. Mhm. ñu teqatal lu jëm ci àq ak yelleefam mhm. salfaañi ko dañoo war a dem nag euh, kalaame ko fi nga xamante ne fa la mbaxana doonee benn mhm. bu munta lijjantiku ci réew mi ñu daal di jéggi réew mi parce que comme ñu ngi ci biir CEDEAO te am na lu ñu tënk ci CEDEAO ñu dem kalaame ko foofu man nag euh, li ma si jaaxal rek mooy CEDEAO haute cour de justice boobu noonu bu CEDEAO bi euh, lépp lu mës a dogal lu jëm ci wàllu politique surtout fii ci Sénégal duñ koy jëfee mhm. yaa ngi fàttaliku mbirum Karim Wade lépp luñ fa kalaame nañ leen ko boo fa jógee nga dem ci mbiru Khalifa Sall ak règlement 5 UEMOA bi muy wàllu avocat bi ko waroon assisté ñu gàntal ko ñi nga xamante ne ñoo fa demoon di clamé moo tax ma yaakaar ne mbiru Ousmane Sonko mii mbaa duñ delloowaat buum ca boy boy ga bu fekkee ne cour de justice bi am na lu mu ci addu ndax nguuru Sénégal dana ko jëfee parce que saa yu leen arrangé wul nguur yi dañu naan état yi dañoo souverain ku ci nekk rek am nga sa sañ-sañu bopp am na loo xam ne du doon dogal boo xam ne da nga koy jëfee su fekkee ne jàpp nga ne jaaduwul mhm. moom la ñuy tegaat rek ci taabal bi bu dee am na décision bu fa jógee nguur gi jàpp ne loolu arrangé wu ko rek euh, xëy na peut-être cette fois-ci mën na am différence waaye bu ñu xoolee ak yi fi jot a succédé yëpp mhm. ah duñ ci mën a am yaakaar. Mhm. am na solo euh, professeur Mbow bu ñu ñëwaatee un rek ci li nga xamante ne moom moo di recours bi ñu dugal requête bi euh, gis nañu également dañoo sàkku ñu baral mbir mi laataa ñu koy rajjee ci li nga xamante ne moom moo di liste yi ndax candidat déclaré la ci élection présidentielle yi ñu dëgmal. waaw fii la jiitoo. maanaam fii Sénégal la jiitoo. Mhm. Ah, dañoo sàkku si juge des référés mhm. ngir bu ñu nee juge des référés ngir mu mën a baral maanaam loo xam ne procédure bu gaaw lay doon mhm. sur quarante huit heures sur soixante deux heures maximum mhm. pour ñu mën a delloo ak ak yële parti bi di Pastef ay jumtukaayam ak ay permanence pour ñu mën a wóoyal ba keroog chambre administrative au cour suprême di génne décision confirmer le décret présidentiel wa il a infirmé le décret présidentiel euh, donc si loolu lañu fay la njëkkee normal la parce que yi euh, li nga xam ne moo tëgg CEDEAO dafa am li nga xam ne wàllu yoon mu di cour bi nuñ ko tëggee te itam citoyen yu bokk fii nga xam ne moo di euh, suñu zone bi am na sañ-sañ dem saisir li nga xam moo di cour de justice euh, ay avocat nag Ousmane Sonko def nañ ko léegi nag décision bi ñuy rendre def naa ne nag état du Sénégal comme na ko Ndeye Fatou waxee daf man dama ne daf see war a tënku mhm. xam na daam war see tënku tey ji nii CEDEAO moom moo waxtaan si biir di xool ndax xam dañuy songi Niger wa illaa duñu songi Niger donc si lan luñ koy jëlee maanaam CEDEAO moo leen di jox li nga xam ne mooy di buntu bu ñu leen ne am ngeen sañ-sañ dem rétablir président Bazoum mhm. ndax xam lañuy xaar pour mu jol ndogal wax ni dina dem wàllu dem masama nag cour de justice bi war a gën ndogal donc gis nga foofu noonu dina am loo xam ne dafay salfaañu bu fekkee ne yow yaa ngi wut mandat wu CEDEAO ba pare di bañ euh, décision boo xam ne cour de justice CEDEAO moo ko génne kon boog fii la CEDEAO di wax defe naa ne li ñuy xaar la mais euh, CEDEAO bu ko génnee defe naa ne nag dañoo war a jël loi nationale teg ko nele bu fekkee ne loi supranationale ñëw na te ñu bokk un espace communautaire ba tëgg li nga xam ne moo di ab cour boo xam ne dafa tënk état mm. membre yi euh, ba nga xam ne effectivement lañ seen wax ndaxam dina arrangé Sonko ñu tënku si ndaxam du arrangé Sonko ñi nekk ànd ak Sonko tënku si ba pare dem seeti beneen juridiction amaana bu fekkee ni loolu moo am ñu seeti beneen juridiction boo xam ne xëy na dina mën a yaatal euh, mbir mi surtout nag si li wàllu droit de l'homme bu nekk Nations Unies. am na solo Abdoulaye dañuy àddu ba tey ci li nga xamante ne moom mooy ñeel mbirub Ousmane Sonko ak farandooram yi nga xamante ne dañoo jéem a vilipender kile di njiitu réew mi Macky Sall fële ca États-Unis ginnaaw nag voyage officiel bi mu doon amal foofu jëm nag ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett session bu assemblée générale bu Nations Unies ginnaaw nag visite bu mouvementé la ginnaaw nag am na pëccoxoo ak yu nu mel ginnaaw itam ñu nemmeeku farandoo Ousmane sonk yi daal di nañoo yëkk ci ay discours jëmale ko rek ci njiitu réew mi ak yu nu mel loolee nag ñi ñi dañoo jàpp ne lu nu mel ab niveau de démocratie États-Unis ginnaaw gi ñoom ñooñee sax police ba ñoo leen daal di encadré waaye itam euh, bu ñu ko euh, méngaleeg fii ci Sénégal ñu mel ni ne euh, fii nag ci Sénégal am na loo xamante ne itam war nañ kaa soppar ñi jëmale ko rek ci wàllub liberté d'expression mais également li jëm ci wàllub démocratie loole moo di jàngatu Fatou abdu Ndiaye ñu teewlu ko ci. ngan gi njiitu réew mi Macky Sall amal ca États-Unis rawatina New York am lu ca ñu kukku ne ay manifestant ñenn ñi fare ci Pastef ñoo taxaw di ko xaar ci ay bërëb yu bari takk der ya nekk ca Amérique ñoo doon addu karange gi di dalal manifestant yi ngir rek ñu baña a song nga xam ne ñoo ànd ak njiitu réew mi Macky Sall mu mel ne lu nu mel dafay indi tontu ci manifestation yi ñu tere ci Ndakaaru ak yenn région yi nekk ci Sénégal ay jamono ngi nii kenn nanguwul manifestation ci Ndakaaru motif yi ñuy joxe moom mooy rek trouble à l'ordre public tey position bi mel na ku jël xeex bi yóbbu ko ca biti réew rawatina New York jël ay image ci ñi nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan ci manifestation amoon ca Dakar ak Ziguinchor di ko fësal képp ko romb bàyyi ko xel réew moo xam ne fonk liberté muy États-Unis réew mu fonk démocratie ak bakkan ñu daal di fay jël image yu Sénégal wane ne démocratie bu dellu ginnaaw la lu nu mel ndax bu fekkoon ne nangul nañu manifestation waa F24 wala ñu nangul ko waa yeewi askan wi du mën a yem rek ci sunu biir ni ñu koy waxee li tilim yam fii ñu fóot ko fi weer ko ba noppi indi ci pexe tey jii mu mel ne lañ doon bañ am nañ lu ko gën a metti ne démocratie bu Sénégal fësal nañ ci biti ne dafa ñuul kukku te lu nu mel ñu bari dañ ñu ciy bàyyi xel jaajëf Fatou Abdou Ndiaye Ndeye Fatou bu ñu ñëwaatee un petit euh, visite bi ñu gis ne ne également euh, yuuxoo bi bëri woon na foofu naam bu fekkee am nañu ko accueillir ci ay farandoom ñeneen yi nag ñoom euh, da ngay gis ne ne def nañ sax ay compil vidéo ci yenn ci doomu Sénégal yi nga xamante ne ñàkkoon nañ seen bakkan ci fii ci manifestation ban jàngat ngay def ci situation bi. waaw Fatima xam nga olof dafay faral di wax ne ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom. Mhm. président fii àndam la Sénégal xalaatu ko boulevard de la république bee sax boo dooree Sandaga balaa ngaa yegg euh, fi nga xamante ne mooy rond point église ba cathédrale <laughs> yaakaar naa ñu teel laa téye mm-hmm. donc fii ak foofu du benn ndax foofu dem nañ sax bañ barricade ko ca fa nga xamante ne fa la dal kon euh, wane na ne sañ-sañ yi mu am fii amu ko foofee nga xamante ne moo di ci États-Unis mm-hmm. donc dëkk yi du benn mm-hmm. liberté yi niñ koy respecté foofu du benn da xool ñi koy manifestel foofu ñoo force de ñoo jaxasoo xale di yuuxu di def ay va et vient kenn du leen ko tere li ñu leen di bañal rek mooy yëkkati loxo ba bés boo demee bay bëgg a rek ñoom ñu doog a intervenir waaye loolu xam nga xalaatoog Sénégal hmm. bu doon fii lacrymogène yi naaw na bu yàgg grenade yi topp ci nag mooy wane ne ñun am nañu lu bëri lu ñu war a liggéey ci suñu démocratie ak suñu sàmm ak ak yelleef doomu aadama te hmm. foofu la àdduna toll gis nga sànq Ablaye mu ngi koy wax si grande gueule li ci dënn yi bu ñu bàyyiwul ñu génne ko ci kàddu yi rek bu yàggee ci loxo yi lay mujjee fitna lay jur hmm. donc nañuy bàyyi nit ñi su ñu bëggee exprimer wu ñu exprimer wu F24 a ngi nii lu mat ñaata juróom benn ni demande manifestation ñu leen koy gàntal mhm. loolu du lu rafet ci démocratie léegi nag li ñuy bañal F24 du nañ lu ko raw fële nga xamante ne moo di ca États-Unis mhm. jàngat la rek président moom loolu da ciy jàngat pour mu bàyyi nit ñi ñu manifester suñu bëggee manifester waaye aussi lépp lu ñu bëgg yuuxu ñu jox leen nopp bi déglu leen ndax ñu mën a génne seen i mébét day tax fitna du yeewu te fitna bi fi yeewu jur na lu bëri ci jafe-jafe ci wàllu ko koom-koom ay conséquences la euh, lu ñuy war a jàngat la rek waaye xam naa ne tukki bii moom yàgg na am ay tukki waaye bii moom ah bii moom du ko gaaw a fàtte ah, moom mu ngi noonu Abdoulaye bu ñu ñëwaatee ci ci wàllu démocratie est-ce que tey euh, mën nañoo méngale quand même démocratie bu États-Unis ak bu Sénégal bu ñu xoolee aussi que ne foofu itam Donald Trump gis nañ ne euh, ki la di njiitu réew mi élection def nañ ko mais également contesté nañ ko jëm ci wàllu démocratie